salaamaaleykum sama mbokku internet yi maa ngi leen nuyu di leen ziar ci weeru koor gi tey seen émission conseil santé ngëneelu koor dem na defal leen gëstu ci avocat avocat nag au sens botanique fruit la au sens populaire muy légume moom am na ndox am na protéine am na lipide am na glucide am na vitamine K ak E am acide gras monoinsaturé moom dafay réduire les risques de maladies cardiovasculaires dafay diminuer suñu avocat dafay prévenir les maladies cardiovasculaires dafay dimbale suñu organisme à ce que mu autoréguler pour mieux fonctionner efficacement yow mi nga xamné da nga obèse ñu ngi lay digal ngay ben avocat par jour parce que moom dafay diminuer graisse viscérale bi dafay diminuer suñu masse corporelle ak suñu tour de taille moom avocat dafay huilam rek